wal tarhami te yalla nga ñu yërëm yow yàlla maanaa ay bayto ngi ni ñaari bayti yi momit ñaan yu for la ajril mahabbata fi luruqi ilahana bi muhammadin wa bi sahbihi majraad dami athbit muxallada xubbihi fiina ila yowmi liqa wal taxfiran wal tarxami mu ne مخلد حبه دنگ وي saxal muxallada xubbihi dégg ci ñun ilaa yawmil liqaa ba keroog bésub daje ba mooy sunu giirub dund yal na nga saxal cofeelu Cheikh na Tijaani gu biir ci sunu xol yi wal taxfiran yal na nga ñu jéggal wal tarxamita yal na nga ñu yërëm jéggal ñu te nga yërëm ñu ci barkeb kan bil Mustafa ci barkeb yonentu yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa bil anbiya ak ci barkeb yonentu yi wa bi sahbihim ak ci barkeb seeni sahaaba wa bil awliya ak ci barkeb Cheikh na Ahmad Tijaani wala barke wali yu yàlla yi ay tiijaan wa bi kulli man ak barkeb képp koo xam ne yantami dana askanoo lahu ñeel cheikh aji bi duaa yal na nga nangu ñaan lil abdi ñeel jaam boo xam ne jaa dikk na mu takaffifan di yalwaan rabbi borom sama ilaahi yow sama yàlla ji sayidi yow sama sang zal anum yow borom xéewali yow laay ñaan li ma lay ñaan mooy nga nangu ñaan gi ma xamne ñaan na la ko wa ala habibika salliyan wa salliman wa ala sahabatihi alidami alanjumi yal na nga julli ci sa soppe bi te nga sëlmal ci mom moy sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wasallam julli gogu itam yal na làmb ay sahabam ya di ñu mag te di ay biddiw li moy mana dal qasida bi ci gàttal yal yàlla may ñu liñ ci ñaan أغرق إلهي في بحور كرامة وفضائل بتفضل وتكرم كل المسعد ما اقترفنا عاجلا ولآجل والطف ولآجل والطف وأنعم وارحم بمحبة الشيخ التجاني أحمد باب النجاة لكل عاص منتمي أجري المحبة في العروق إلهنا بمحمد وبصحبه مجرى الدم أثبت مخلد حبه فينا إلى يوم اللقاء والتغفر والترحم